abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te aju ci réew mi ak ci bitim. ma ngoog euh, ñu dem ci Walf Quotidien lam ñu xëyee tey. Walf Quotidien dafa xëyee dellu si waat ci ndaje mi nga xam ne conseil municipal bu ville de Dakar doon nañu ko amal ni ki démb ci ci njiital. Mhm. Euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Khalifa Sall yéen a kaay Guinée mboolem poste adjoint yi nga xam ne waa Pastef amoon nañ ko fa. Euh, kii di Barthélémy Dias nangu na lépp noonu la ko yéen kaay gi xëy fësale euh, yéen kaay mhm. euh, mhm. geneen l'info yéen kaay gi di l'info dafa xëy dellu si waat ci section parti Pastef ci bureau municipal bu Dakar yéen kaay gi ne nag loolu yi nag dara maanaam dafay wéy rek euh, duel bi nga xam moo dox ci diggante maanaam jàmmarloo gi dox ci diggante Khalifa Sall ak Sonko noonu la ko yéen kaay gii di la mandat yéen kaay gii di la mandat dafa xëy dellu siwaat ci Barthélémy Dias mi ñu léegi moom dëggal na Euh, li nga euh, divorce maanaam euh, wuute gi nga xam ne dox na ci diggante parti Pastef ak taxawu Sénégal yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel yéen kaay gi nag xëyee dellu siwaat ci la nga xam moo làqatu ci ginnaaw loolu le présidentielle 2024 Aliou Sarr moom jamono ji maa nga solo ay dàllam ma nga fële ci diwaanu Ziguinchor dafa amal ay tànki nemeeku mu ngi ci yéen kaay gii di la mandat yéen kaay yi géneen l'observateur yéen kaay gii di l'observateur ne Ousmane Sonko bokkatul ci liste électorale Euh, euh, li ko waral nag moo di dañoo sukkandiku ci wàllu contumace bi ñu ko daanoon daal di rayé turam ci liste électorale yi kon fu mu toll nii moom Ousmane Sonko mënut a bokk ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale sous préfet bu Ngor Almadi ma yónni commissaire jéppal Derkele sàkku ci moom mu jël décision bi jébal ko lii di Pastef ndem nag jamono ji nekkul këram ñu ngay tëral ay pexe ngir xool naka la def euh, ba daal di koy jébal fële ci dana am leneen loo xam dina ko jur euh, ci wàllu yoon noonu la ko yéenekaay gi di l'Observateur xëye fes yéenekaay gi di critique ne neexul ba neexul waaye li ab poursu la la noonu la ko yéenekaay gi euh, xëyee euh, fësal Abdoulaye yéen a kaay geneen Seydina Mar Ba si ah, jamono ji nga xam ne Ousmane Sonko ma ngay dëddu lekk ak naan ci jamono ji le président maanaam Macky Sall ak nguuram ñi nga xam ay militant ni ki démb am na si ñaar fukk ak ñoo xam ne daanaka dañ takkal seen i euh, yóbbu leen euh, yóbbu leen nga xam di ci rëbës noonu la ko gi xëy fësale yéen tamit xëy dal Abba doon kenn si jege jaale Khalifa Sall yi ci laaj ak tontu Sonko ak eh, mm-hmm. moom dafa eh, di président assemblée nationale loolu nag Abba Mbaye ko noonu la ko yéen a kaay gii di source a xëy fësal a quotidien a ne eh, fële Canada réew ma ne mm-hmm. ñu tàmbalee kon di rëbb ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqoon ambassade Canada ci barab boobule am na ci nag fukki doomu adama juróom yoo xam xamante ne jamono ji identifié lañ leen euh, police bu Ottawa mu ngi leen di wër mhm. mu ngi ci yéen kaay euh, di la Tribune Abdoulaye dafa di ñëw ak waa fu mu toll ni ñetti ay fan yu néew moo des ngir ñu déposer parrainage yi waaye ba fii coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga ko mooy seen ba ci sax opposition bi la tax yéen gi ne neexul ba neex waaye yéen gi ne ne dafa am lu bari loo xam ne daanaka euh, daf koo wuute noonu la ko yéen gi xëy fësale tey fu mu jëm waaye yéen a kaay gii de soleil xëy dellu soit jafe-jafe yi nga xam ni borom kër yi ñu ngi koy dund jamono ji nee nañ fu mu toll boo duggee ci marché bi lépp yokk euh, soble bi yokk na ba ci tax yi mu nekk na situation boo xam ne situation bu jéggi daal tax yéen a gi di la soleil xëy tey si daal si amal ab taxaw seet yéen a kaay geneen euh, di club euh, nañu a ci rendez-vous ba Mané ak Ronaldo neexul ba neex waaye jour la ñoo xam ñu déggoo a gi stade kon ci loolu la xëy waat yéen kabi di suñu lamb Abdou eh, la dalal Abdou nag kenn la ci kilifa yi nga ko écurie bi écurie Fass yëkkati na ay kàddoom daal di wax ne ne écurie bi dafa war a jël dogal kon daal di dàq ki nga xam ni daal dafay bokk ci écurie mooy koo xam dafay nekk ci écurie bi dafa entraîné mm-hmm. waaye ñii duñ leen gis duñ leen dégg noonu la ko yéen kaay gi di suñu lamb xëy fësale ma ngoog fës na lool ci baatu askan wi abonné leen ci ci xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim